والله شيخنا عبد عاس كل معالي صدق القول ساهدنا تواني ñu ngi lay tontu ci yoon li la tax muy ab laajte bu jëm ci kilifa gu mag gi nekk gu dem koy wax Seydi Alhaji Abdou Salam Guèye ci lenn liñ xam ci ay jaar-jaaram ñu ngi dugg ci loxoom 1943 lañ ba dal baasin ci moom dëkk bu ñuy wax kër Sëriñ Baabu daaray sëñ Moot Coy di doomi bàjjanam ba ñuy dem ci loxoom fekk nañ mu jàngal Alxuraan ba mokkal fekk nañ mu dal fiq ba ba jeexal ko mu des téere yi luxa mu jógee ca daara ji dem ci daara ji ñuy wax daara alaaji jibel kër sëriñ baabu boobu am na fa fukki at diit bam fa nekk ci daaray alaaji jibel su timis jotee bañ julli ba pare mboolem taaliba boo xam ne yaa ngay jàng ajuruma wala mu laxatul liraab ñëpp ci néegam la ñuy daje ba bañuy julli gexe mu leen ay toppal laa yukallimuna allahu aw tatina ayatun kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tasaabaat qulubuhum qad bayanna al ayati li qawmin yuqinuna maa bëgg a waxtaan ak yéen ci suma doomu ndey di suma mag di suma ma xam ci moom sax bariwut danaa leen mosal tuuti ci li nga xam ne xam naa ko te man koo wax loolu mooy lan moom day mooy suma mag ñu ne maa topp ci moom waaye man day suma toppee ci moom it xam naa soree nañ ndax man balaa may xam dara fekk naa sama baay joxe ko mu jàngi ba xaw ma ci moom dara diirab lam nekk ci àll bi kim ko jox it suñ mbokk la ndax suma bàjjen moo ko jur bàjjen joo xam ne moo suma baay ñoo bokk benn ndey waaye nag bokkuñu baay moom wadd san sant ñu di ko wax aminata wadd moo jur mamad aminata mooy koo xam ne saalum bokk na ci ñi ci fi dàq alquran loolu kenn weddiwu ko kanaa ko ko xamul waay képp koo xam ne xam nga ko rek boo ne xaa saalum moo coy bokk na ci ñi ko dàq ñi fi dàq alquran da nga danañ xam ne di nga wax dëgg la ci ñi ko xam kooku moom la ko sama baay jox ba ko ko sama baay joxee suma yaay def yëfi jigéen ne kii dafa teel ci bur jàngi góor gi ne ko ah de xam nga ne lu ma la wax dinaa ko def kii bu fekkee dog yàlla mi nga xam ne mooy dogal dogal na ko tey dina ànd ak magam ji dem jàngi alquran ah su ma yaayit ku nekk ak nit xam ko mu xam ko mu man aminata ànd ak sëñ yobbu ko ci dëkk bu ñuy wax coyeen la commencé foofu ci coyeen nag bépp ba muy ñëw kër sëñ baabu xaw ma ci dara ndax fekkeewuma ko waaye mosal nañ ma ci tuuti ci waxtaan ko noon la ndax moon Aminata mu man alxuraan rek la bëggoon te yërëmu ko mu métti ci moom lool waaye lam man alxuraan lam bëggoon ci moom am na ko ñu jógee fa toxuse kër sëñ baabu bim toxusee kër sëñ baabu man maa ngi ko xam ci 1940 suma mag ji nga xam ne Awa Gueye lañ koy wax ñu joxe ko soorom mooy sëy ak jarbaati suma sëriñ bi ma doon jàngal alquran mu tudd sëñ daara mot kare Awa Gueye moomu buñ déggee ne Mor Coy toxu na kër sëñ Baabu mu ne dafay dem seeti leen ba muy dem nag mu ñëw ci suma sëriñ ne ma ne ko dama bëgg nga abal ma bookar ma gunge ma kër Baabu mu ne ko baax na bisimilaay kon na su àllarba ngeen dem ndax balaa fay yàgg bay tarde jàng mu delsi ba ko defee bañ toogee bés bi wax ju dem sooroom lañ xëyee di dox ñu ngi jaar njeejeng jógee fa dem njóobeen taaleen jógee fa dem caareen jógee fa dem fi ñuy wax njóobeen galo jógee fa dem càmbeen jógee fa jaar diggante ngoonde ngam eh, eh, eh, mbam lageem dem celu Ndofaan dem kër sëñ Baabu bañ jógee kër Baabu ñu àgg dëkk fi boot cooy dëkk takkusaan mu dalal ñu om ko defee kere laa door xam ne man mii am naa mag ju ñuy wax Abdou Salaam ak mag ju ñuy wax Aswad ak mag ju ñuy wax Mor mu di seen sëriñ ak Abdou Khader Diop booba lu Mor Coy man ci alxuraan booba góor gi man na ko لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تتابعت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون سجلي نيغا خامي لا دون يري doon na yari woo xam ne yeneen duut ku jax ak soong moom لا loo ko xam ndax dana la xamal alquran dama la xamal hadis nit la ko woon koo xam ne bii tëb li nga xam man nag damaa xamul kenn ku dul moom kenn xawma kenn ku dul moom ndax bi may ñëw si loxoom gune gu tuuti laa ndax moo ma yar walal naa ko ah soq root loolu def naa ko te ko defar ñee ñenn dem am na fi ñenn kenn ñaatu loo xam ne nit tey dana ko xamal nit wala mu mënal ko nit sëñ bi defal na ma ko def naa ko te ñama ko defar ñee ñenn dem am na fi ñenn kenn ñaatu loo xam nit wala mu mënal ko nit sëñ bi defal na ma am taquluna inna ibrahima wa ismaila wa isaqa wa yaquba wal asbati kanu hudan aw nasara qul a antum alamu amillah wa man aslama mimman katama saadatan indahu min allahi wa ma allahu bi qaafina ma tamaluna tilka ummatun qad daqalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yamaluna daan na nawet def tooli basi denc ko benn jot mu koy dimbalee borom kër yu néew doole yi loolu mu ngi ko tàmbalee ci daara ja gis naa benn tool yi basi ñu bay ko ci dëkk ci yoonu Gobaak bañ ko bayee ba mu set mbattu la dul pepp ba fees mu dugg ci pays tool bi di ko wisaare pour dugub dugub ji gën a bari te ña façon jëriñoo ko moom ci boppam dimbali rek a tax mu di ko def loolu nag moom la taxoo ci daara ja ba nii bi mu fa baxee ko sëñ daara alaaj jibal àllarba su jotee day yëkkati ay tabax kayiti tabax ne ko yow doo dem tool bindal ma téere yi luxa yi dimanche jotee mu def noonu diit boobu la xandeeg moom bennam fa jógee ko dem cànga ba mu demee cànga diit ba mu fa nekkit loolu la nekk alaaji ma disatu beneen tàqale ko moom xamul kenn diit boobu xamul benn bés ci dem tool àllarba ak dimanche la sëriñ xame woon waaye yàlla da wàcce woon na ko ci loxol ñi màndal benn laa tusaluuna ammaa kaanu ya'maluuna wa qaalu kuunu hudan aw nasaara tahtaduu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kaana min almusrikina qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa isaqa wa yaquba fii mooy gaage bokar waaw. ban at la fi ñëw. 1949 la ñëpp si daara. Eh, ñu teg 49 50 51 soxnaam ñëw 52 taawam bu ñëw Fatimatu Géey juddu ci daara ji nag ñi fi nekkoon daara ñëpp a doon jaar mokkal ñi fi doon jàng yëpp kenn ku ci nekk yaa ngi neexoon ci mokkal alquran ñi am na ñu doon dal xam-xam nag waay bari wutoon booba ñi fi nekk daal pour tari alquran ñooy seen hit am na rakam ji ñuy wax Daawda Gueye bi ba mu la door a dal jàng njëlbeeni yoonam ci la def li ñuy wax beqi robo suba ñu dem ba mu yàgg taalibe yi nga xam ne jàng nañ ba mokkal dese leen ñuy def ñaari roba par bés mu def ñaari roba par bés ci yoonam mu njëkk noonu la jàngee alquran moom rakam nañoo bokk ndey ak baay mooy caati baayam wattabahu ma tallu sayatinu ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakina sayatina kafaru yuallimuna annasa sira wa ma unzila ala almalakayni bi babila haruta wa maruta wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur am na jaroole yoo xam ne nit ku baax rek walla ku bëgg a baax yaa koy def ndax sëriñam liggéey bu mu mës a moo ca man lépp lu santaane ña koy def la ca moo koy def ñaar rek walla ñet laa leen ciy wax benn bi moo di bi jaamal lakkee alaaji jibel ne dafa yóbbu gattax ak buum ak ñax kenn ku ne ci taalibe seet la nga attan nga jël ko moom mu ne gattax ak buum lay teglante biran di ba it ne moom it gattax ak buum lay teglante ñoom ñaar rek ñoo ko fa def ñi ci des yëpp kenn ku ci ne benn matière rek la jël ne moom la attan dem diggante bu sori la comme naa ne ku fa xamul it war ngay xam Ndofane la gem fi mu toll war ngay xam Birkilaan fi mu toll ci penku bi te Ndofane la gem ak Sëñ Baabu benn la mbirkilaan ak jaamal benn la sorewuñ kon nag xam nga ne diggante boobu jegewut fi la ñu xenoo ñaar yooyu moog biraan di ba ba àgg jaamal ñu teg ko fa te su bëgg ñu xëy ñëpp moo tax maay wax xale yi ne leen góorgóorlu leen ci liggéeyal ko ku ko ci def doo ko rëccu ku ko ci deful da ko rëccu ji واتبعوا ما طلوا سياتين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الضياتين كفروا يعلمون الناس سيرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر لما لو أخنا لا في جمانو تي لم دف في جمانو تي كفو فايدم جس كفو بنفن ndax ni du melni ku koy tabax ah kenn sonaluloo kenn waxuloo kenn dara te ci ci manaaxibam am na loo xam ne lii tey manaaxib la boo xam ne bii tey mbooleem doom joo xam ne mbooleem doom jum jur ah génn Sénégal te loo xam ne lii nan sët dana ko am doo man ko am ci ci ci ci ci ronam Euh, ñi nga xam ne tey ñoom lañ koy kemlante ko ku si masa def nii bu mel nii ci sag dund amut tey ko si xam ne kii euh, ñu ngi koy kemlanteeg moom mu am doom jàngal ko alquran jàngal ko xam-xam mu jiite ko juma euh, jiite ko weeru koor واتبعوا ما طلوا سياتين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الضياتين كفروا يعلمون الناس سيرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فينة فلا تكفر بين tollee في ما dafa دفع أمتير boo يالا دفع كوي دينك أي جامم فوق jaamam fokk ñu dundal barab jóge ci nisiram ci bëgg-bëggam ñetti pàkk la jëloon pour dundal ko yàlla dogal ñaar ñi xam na mu des benn benn bi it xam na nu mu waaye dëppoowut ak nam gën ko buggee woon muy bi mu jógee gaage ndax gox bu ne yàlla dafa joxe fa may muy raison bu ci senegal gi le yàlla xam na may bu fa joxe ñam may yëg nañ lañ xam xam ne lii la na saxaaba yi xàndee woon ak rasulullahi ñu jéem koy xànd ak kañam ñu ñëw ba jamono ji yàlla wëlbati ko jox ñu ko xaw ma ñu ndax xam nañ kiñ xam wala déet ndax miineel bi moo ëpp miineel bi moo ëpp ñu ñeme ko lool te mat na sëk li yàlla def ci moom mu xàndee koog nit ñi mooy jasbul xayn ilallah jasbul qalbi ilallah ولي الرحمة إمام لكو في الله سمحه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فينة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بل من نفس أكارا تويت mu am ci xelaatu boppam ne comme lim doon topp coo ci daara ji mat na dafay xuti kum jokk ci wàllu sëri tariha ñetti pàkk la xelam daj nag benn bi kawlax nee na su fekkee ñëw na Kaolack xam fa weer dana fa bind kaamil kon Baye Niass muy nekk sëriñam su yàlla dogal loolu mu dem Tiwaawoon su fa amee weer dana fa bind kaamil kon sëñ Mbaye mooy nekk sëriñam su yàlla dogal loolu mu dem Mali ci ku ñu wax Seexu Amala foofa moom suy xàgg rek jël ko. loolu le moo nekkoon pas-pasam mu ngi xamee ay gune taalibe ñeent ak ñaari waxambaane mu ne ñaar ñi daf leen ay xaaj jox ko rakam bi ñaar ñi mu jox ko ki tolloog rakam muy ku ñox baabu faana bookar gi ak baabu faana ñaar ñi daf koy jox bookar ñaar ñi mu jox ko baabu faana moom mu dem xuti kum jokk ci wàllu tarixa benn bés mu am kuy dem Ndofane mu jokkaand ak moom ñu ñëw ba Ndofaan mu wëlbati ku ne dafay dem Nioro ñu ànd ba Nioro ne dafay dem Daaru ñu dem ba Daaru keroog la door a teg bët sëñ bi borom Daaru Salaam ba mu ñëwee fekk ko ca bunt pindi teen ba mu ngi koy gasal teen booba dëkk ba sanc la fa ko joxe loxo benn loxo la ko jox benn bi daal bi mu ne daf ko summi ndax booba kaar-kaar dafa set te bugg yaramam bi lool te rafet lool yooyu daje woon nañ ci moom fa la xendu ngoon mu tàggu ko ne mu ngaa ñibbi borom daaru ne di ko xool ba gisatu ko ba mu teg demee toog fa di ba xaw a yàgg tuuti xel mi wëññeeku si daaru salaam mu jógee xàccaa nga del si daaru ba mu ñëwee ba teganteeg moom loxo mu téye loxo bi ne ko kere bi nga jógee fii maa ngi lay xool ba gisatuma la xeme mu moom lu du dajee ku mel ni yow ndeke loolu la ci sa ci la sa xel mi ne xam du ku jóg njëkk ba nga toogat soo toogee dootoo jóg mukk xabdu nit jóg di jéggi ay manding di xuti kabir te dajewul ak borom xabdu yaa waylatee laytanii lam attaxis fulaanan xalilan doo ko wax mukk xelonte woon lu taxama ndaw di sa doo ko wax mukk xabdu foofa mooy seen pas gisante fa ko yàlla xemale ñooro oto Kaolack bu di njëkk a jël ko bu demee seet Eliman Awa kiñ daan wax buur bi su duhut kim gis bu ko jógee fa jógee mu dem Kaolack dina seet Xalifa Ñas bu dul moom mu dem Medina seet Baay Ñas bu dul moom dana dem Tiwaawoon bu demee Tiwaawoon seet sëñ Bay Si bu dul moom dana dem euh, euh, Touba bu demee Touba seet sëñ Fàllu bu dul moom mu mu mu jublu penku nag waaye góor ga ca gaagee amul morom mu ne yooyu yëpp ngay njoor a du la ca fekk gis ki nga soxla kaanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah wa man aslama mimman katama saadatan indahu min allahi wa ma llahu bi gaafilin amma ta'maluna tilka ummatun qad dakhalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna topp suñ kaw Euh, kaamil boobu su tooje fa di jàng Alxuraan ni ñu koy jàngalee Alxuraan nii ne fa toog jàng Alxuraan la mu jàng Alxuraan ba nga jóg tax ànd te ñun danañ ne si moom ak ne si tool ya ak moom bay wàcc timis ñu jël ñu sëkk dafa baax si baax si kër gi euh, euh, lim xam xalqaxal waaye du loo xam ne lu lu euh, roy la du lu ñooy ndax xamee na melo woo xam ne yi nen ni mu ko xamee ci saahiran wa baatinan am na ñoo xam ne ñi tey jii da nga tàqale ko sa bàyyi dikk si moom mu ne mu ne ak ñoom balaa sa bàyyi dee yow laa gën a bëgg si njaboot gam xam ne kaanu hudan aw nasaara qul a antum a'lamu amillah ومن أظلم ممن كتم سعادة عنده من الله وما الله بقافنا ما تعملون تلك أمة قد دخلت لها ما كذبت ولكم ما كذبتم ولا تسألون أما كانوا يعملون أريد أن أرسل لنا كل العالم كان نيت كوكو فك ديمبل كو فني هو بوما ين ديمبل اليال همو فا كرب من يجوك بيكتكو در در در يا رمام بيد فتق كل العالم نبتدأ بياك أمنا بين بول بكو فك ne dana ko defal garabi tàngal laame su fekkee jig na ko juróom-ñaari xat jigu dootu ko dal su fekkee jigul ko dana am juróom-ñaari xat yàlla def mu defal ko ko loola day dal di ko sol dal di jonkoon ci bunt bunt déeg bi jàpp ba pare ñëw julli ñaari raak man maa ngi tëdd ci lal ko xool ma sant yàlla lu ne ah kii de man foogoon naane ne sax daf fiy jóge waaye comme wér na ba mel nii ah alhamdulilah ndeke booba ci gént la ne gént goo xam ne doy na waar mu ñëw ta ak mbubb moomu mu sol summi ko sax mënu ko man maa ñëw dëq ci mbubb mi di ko dindi ba mu génn ci baatam ma dem wekkaat ko mu des forog bu weex bi mu sol bés booba alxemes la ci guddi ba sedd ajjuma moog feebar boobu moog feebar boobu ba alxames bi dellu del seet mu ne ma demal hôtel ma bant bu may sukkootoo ma door a dem ci gàncax bi ba dog fa benn bantu rat tegal ko ba mu jag ñëw jox ko bu toogee ba tàkkusaan mu génn sukkooto génn ci biti dem yàgg mu ñëw wér am taquluna inna ibrahima wa ismaila wa isaqa wa yaquba wal asbati kanu hudan aw nasara qul a antum alamu amillah wa man aslama mimman katama saadatan indahu min allahi wa ma allahu bi ghafilin ma ta'maluna tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna ci kéemtaan am na lum ci def bariwut ndax dafa dafa dafa noon taras bu gut lu ci moom yàgg na ci lool benn bés ñu jógee ko fii dem gannaaw géej gàmmu bañ demee ba wëññeeku si am na gaal gu ñu war a dugg xol bi jàpp na ne gaal gi dana suux waaye xoolu xut koy wax ndax mu ngi dend ak magam te su ko feeñalee mën na tiit am na ñu wëññi ñu dem gànjaay jaari Kaolack dugg oto ndax dañ yombati te la na ci ñoom dara biñ duggee ba ci biir géej gi gaal gi këpp ni ma toogee nii ni la toogee ci ndox mi li may dégg ci làmmiñam man maa ngi fii di ko wër li may dégg ci làmmiñam noomin ke bi ñu xàndal nga xam ne mooy suqali nit ñi léeg mu ne ko kenn nga ne la day sonn na mu dem jël koo ko indi mu dellu ne ko keneen na nga ne indi ko loolu la ca lay nekk ba yàlla moom ci benn bakkan ñu door a ñibbisi toog naa ba benn jamono genn guddi talaata ma tëdd ci ma nekk ba guddi góor gu mag ci tolloog bant bële fa la ma feeñu ci ko yoon wi ne ma liñ dénkoon borom Daaru Salaam jox nañ ko sa nijaay guddi tey noonu la ma ko waxee waaw bi ma wax jooju ak fi borom daaru salaam demee li ñuy wax xàndandoor kii xutu ak kii toog seen diit bi ñeen fukki fan dañ ko xànd bi ma nattee fi mu fi mu ko waxee ak fi mu demee noonu la xem xànd nañ ci tool garab goo xam ne dañ ko dagg li ñuy wax kolob ñuy dajale sebu ba def jal bu rëy ñu ne nañ yëkkati taati garab gi ko ci ndax mu tëdd ñu mën koy taxal lu mat juróom benni waxambaane ñooy ñëw da taati garab gi yëkkati ko ba taxaw ñu ne nañ xàndale doole xàndale doole ba yaakaar ne pamax na ñu puus bam demee benn tekk rek walbatiku fii la dóor asan sekk diggante baat bi ak mbagg mi ci la pala garab ga daal ci juróom benni ponk la ko yëkkati waaye asan sekk yàqalu ko sax li muy def dafa continuer ci liggéey bi ba tey yëgut ko benn méttit xamul ci yaram bi ñaari yëf yi def na ko ci suma kanam ma gis muy li ñuy wax kéntaan guddee mu ngi jógee gaagi gi 1975 la jógee gaagi sanc guddeem 1977 la taawam gaañu ñu koy wax Moustapha gi boobu ba léegi nag mu fa toog di wéetal yàlla ca nam ko bëggee sàkku lenn lu dul ngërëmal yàlla ngërëmal rasulullahi nee na lépp lu buur di xaay ña koy njëkk ba ca bokk lépp lu buur di dégle ña koy njëkk def ca laay bokk te soxlawul ci ñoom dara ñett de soxla na ko ci buur yoon ndox kura soxla ne ko ci ñoom bëgg na ñu dimbale ko ci bëgg na ñu defal ko ko waaye lu mooy lii nañ ko wëccee bokkee ko bind waaye ñetti ñi na xitteem la yoon ndox courant lu mu bëgg la moom la toogee fi mu ne yoon wa baaxul te it soxla nañ pàkk ba ña fay dem kat yaakaar ci wàllu àdduna dong moo leen faa yóbbu waaye kenn yàlla yóbbuwul ñu kenn amul kenn nit ku fay dem saxaajooy àdduna sa jafe-jafe àdduna sa teraanga képp moo di fa yóbbu nit ñi kon àdduna yëpp fa jublu fi mu nekk ndax gis nañ fa seen njëriñ ku dem yàlla fajal la la nga bëgg mu ne loolu nag moom gàcce la ko def kii faj yàlla la moom du moom kon lu ñu waxee ku dem ko def moom loolu la wax. kon dama la doon wax ci njëlbeen ne dafa nëbbukat la woon bu baax sax dafa noon taras de wa ku xam ku wax ci moom dara li ma lay dénk ne nañ ko gën a nañ ko gën a dimbale ci. nettali ayibi nit ci ko kanam nañ moytu nettali ayibi nit ci kanamam lépp lu ñaaw nañ ko ba wax ci kanamam lépp teggi nañ ko gën a yokk ci moom képp ku ci xam dara ak sa xam-xam lu mu rafet rafet laqal sa xam toog ci peggam déglu ko mu xamal la loo xam ne xamula ko lal sa xam-xam ñi jàng loolu laa leen dégg ñi jàngu te ñi jéem a xam yar ndax képp ku jógee guddeem luñ foog ci yow xam nga xam jub nga xam nga yar képp ku jógee guddeem loolu lañ foog ci yow ku la fay ku fay joxe guddi loolu nga bëgg ci moom kon nañ góorgóorlu ci suñ bopp ku xoote nag xëy la bëgg ku ko xëy la bëgg te daf doon xoote te xëy si xag si na kon miim xamatul de lu ne xang fa kuy xoote ku la xëy nga bëgg te xoote na bañ xëy si yaru fa jafe na xam fa dara jafe na waaye nañ jéem a góorgóorlu wasalaam waxtaane ku ko jar la ay jaar-jaaram xam ko baax na ci ndaw ndax soo ko mën soo ko mënta royit nga def lu ne mel ndax yàlla may la ah, lu mel ni limam wala lu ko jege alhamdulilahi rabbil alamin is qaala li bani ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد دخل الله ما كسبر ولكم ما كسبتم ولا تسألون أما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في سقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبقة الله ومن أحسن من الله سبقة ونحن له عابدون قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم لنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أسلم ممن كتم سعادة عنده من الله وما الله بغافل ما تعملون تلك أمة قد دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون أما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا صعداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع رسولا مما ينقلب على عقبيه كان بما ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليدع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك سر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم صدره وإن الذين أوذوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم والله شيخنا عبد عاس كل معادي صدق القول ساهدون توالي